La troisième édition, mais c'est la deuxième fois que vous venez faire un tour Hambourg. Euh, nous, sommes vraiment contents de vous recevoir d'abord. Et comme vous le savez, hein, vous savez, euh, Sénégal est connu maintenant à travers maintenant tout le Sénégal. Tous les médias le savent. Et c'est un honneur pour nous aussi aujourd'hui euh, d'avoir une étape qu'on a réussi. j'ai bien euh, qu'on a bien réussi parce que bon, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien. Bon, les, les, euh, les, habit les, habitants ont, ont adhéré et c'est tant mieux. Et nous souhaitons à l'avenir mieux préparer cela. Dehors Sénégal, qui, qui s'étale sur a entamé sa deuxième étape après la ville de Dakar et le coup d'envoi qui a été donné par le ministre des Sports, M. Matarba, qu'on remercie au, au, passage. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième étape du World Sénégal et la deuxième étape, c'est la ville de L'objectif du World Sénégal, c'est de vulgariser le cyclisme dans un premier temps et contribuer au développement du sport cycliste et aider aussi les, les, jeunes enfants dans leur éducation. Raison pour laquelle dans chaque ville, on va offrir des milliers de cahiers aux jeunes enfants. Mais au Sénégal, c'est SR Energy qui nous a, qui nous a aidés pour la première fois. Donc c'est la première entreprise à avoir fait confiance à Thiès Bob, à avoir aussi donné son argent pour aider les enfants à avoir des cahiers. À part cela, c'est que des entreprises françaises qui nous ont soutenus pour mener à bien cet événement. waaw ñu ngi gërëm bu baax euh, waa wër Sénégal c'est-à-dire que comme ni ñu ko waxee léegi day mbirum cyclisme loo xam ne léegi euh, au Sénégal mi ngi am léegi euh, avancement léegi nag buy ñëwee war koo commencé yu ñëw tey ba Mbour may ñu benn étape boo xam ni waa dëkk bi yëpp vraiment apprécié nañ ko ñu war ñëw ñun vraiment dañ ciy kontaan te bu ñu sañoon nag aussi ñu gënul ko yaatal. ñu gën ko yaatal ñu gën fee yàgg waaye nag comme tour du Sénégal la ñuy def duñ leen mën a téye waaye waa Mbour yëg nañ seen bopp ci mbir mi. te aussi chaque fois bu ñu ñëwee duñ ñëw ak loxoy nen dañuy ñëw aussi pour jàppale élèves yi euh, gis nga ko fi mu indaale nañu ay keesu kaye yoo xam ne dañ ko war a jox xale yi. te loolu am solo la te day day gën a vulgariser mbir mi ndax xale yi dañu xam ni wër Sénégal ñëw na ndax kaye yi boo ko seetloo loolu lañ ci bind. bon ñun nag ñu ngi ci seen ginnaaw lépp loo xam ni maire bi mu mën na ko dana ci jàpp pour édition yi di ñëw gën a dox. waaw objectif wër Sénégal li ko wund mooy suqali vélo ci Sénégal. ba pare suqali tamit éducation ndax dëkk bu ñu dem dañu fay may junni kay ci xale yi nga xamante ñoo ne ci réew mi pour jàppale leen ñu jàng parce jàng am solo la. ku wax si wàllu Sénégal wax ay moyens mais ci senegal benn benn entreprise muy Star Oil moo ñu jàppale ba léegi mais sinon entreprise ñu jàppale lépp France la ñu nekk bu ñu sañoon nag bu ñu gisee lii wala ñu dégg lii entreprise nekk senegal dinañ dinañ ci def seen loxo te xam ne mbir mi mbiru Sénégal la mbiru jeunesse bi la di am kontaante bu baax a baax defe naa li ma war a wax yëpp sunu promoteur bi wax na ko bi ñu def naa loolu sant wér di sant yàlla wér